mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay yaay mbër fooy fanaan si yoon bi sant sumay ñaari waajur xama di nuyu waa Yoof xama di waa Ngor waa Wakaam xama Soumbédioune Mboro Ndar xam nga Kees xam nga Jogo Fass bàyyiwuma kenn maa ngi nuyu ñëpp dëkku Lebu yëpp maa ngi leen nuyu xam nga di nuyu sumay mbokk yëpp di nuyu sumay waajur bu baax ñu ma àndal ñu samay affaire xam nga ku lim da ngay jum maa nuyu sama gars maa ngi lay fay di nuyu ñëpp waa Ndaayaan Popenguine Séréer waa Kiñaabur waa Diass waa Yoof di nuyu tundoo yëpp daal lébu gi yëpp. waa waaw damay nuyu waa bu baax a baax a baax. Hmm. kon ay mbokk Jalaaw Géeraw Bargny yéen bàyyiwuma fenn daal waa Ndiassane Missirah Joal Palmarin bàyyiwuma waa Casamance bàyyiwuma ñëpp Ndour Ndour. Hmm. ay mbokk war a bëre de nga am ci loo jóge war a rétifié wu dugg ci ki nga xamante ne nag ñëpp bant bu gudd lañ koy laale lan moo la dugal ci moom. non dama xam ne ndaanaan la rek moom ndaanaan la champion la parce que kenn bëggul jël sama avance moom bu jël sama avance. dama siy sant yàlla bu baax di ko ñaanal bu bis bi rek yàlla may ko wér yàlla may ma wér. Hmm. Uh-huh. bu yàlla may wér may la wér may may ko ñëpp. ba ñëpp teew bu neex lay doon bu saf. Hmm. amul fen waaw. lan moo koy safal. non day saf ñaari lébu lañu ñaari jàmbaar kenn amul ci kenn du arrière koñ day saf. day saf yow doo ko arrière la non du mu arrière. waaw loolu loolu mooy yëfu góor sax loolu mooy yëfu góor quoi. moom warul warul nuyu waa Yoff xam warul nuyu waa hmm. dañ ko mere xam nga ñu mere ga dafa nekk suñu grand frère hmm. buñ ko woowee wax combat waru woon jël combat bi ah, mais mais mais mais mais dina si moom trop barke Seydina Mouhamed Yoff gi ñu ngi koy wàññi waaw Yoff man Yoff dama yàgg ñëw am ay mbokk rak sama rak di si man moo day sëy Yoff hmm? du ñëwati Yoff li guddi yi ñu toll nii maa la ko waxoon nag sama rak ji topp ci man mu ngi sëy yoof kon koñ dama fay ñëw. <laughs> bañu ñëw <laughs> dal day neexal combat waaw parfois nga ñëw ñu dàq ji la waaw mu ngi noonu loolu du ma teree ñëw yoof man dama fay ñëw yoof dama fa am ay mbokk waaye nag woowuñu leen yoof fii lañ woo fii lañ leen woo le 19 moo tax ma ne moo <coughs> yàlla xam ne avant le bu ñëwee yoof combat bi du am maa la ko wax fii nag non na am rek avant le avant le bu ñëwee yoof combat bi du am dama am ay mbokk te ñaanuma yàlla combat bi dindi ko est-ce que am nga loolu ah nga am na droit am na droit ah, am mbokkam yi sëram yaag ñam faam taxaw fële ca ndaayoon téléphoné sañ na ko téléphoné déggoo li ma si déggoo ma man dafa am ñoo ma dañuy déggante téléphone bu baax a baax yow samay mbokk ñoo nekk yow te kii mënul tax samay mbokk ma bàyyi samay mbokk yow yàgg naa dugg yow di bëri man mbapat mu ma dugg yow dama ko jël boobu booy màgguñu de boobu man boobu man xaw xaw ma sa bëre maa ngi dégg lu mel def bi ñu bind kër gu mag di ñëw fa di yëngal gars yi ah. instant booy dañ màgg nag taxul woon sax ngay hésité jël dool de mooy yow instant xale dañ màgg xale dañ ja bëri na si mboppam moom dumbul ah. bëri na si moom xam nga loolu yaagul nga dem rajaxe ko non waaw xam loolu yaagul waaw boobu ñu fa teg dama koy jël yow loolu yëpp ngi ñu fa fekkul ñu fekkul ma màgg boo ma màggoon du jël dara. soo màggoon. billaahi wallaahi boo ma màggoon du jël dara. léegi màgg nga. boo boo ma màggoon premier tour lay daanoo. màgg nga ñu boole leen la dix-neuf mars. dix-neuf yàggul dix-neuf yàggul. billaahi wallaahi dina tàng dina neex baat sëñ Bamba. mbir mën na ci am. lépp pare na pour lépp kii du ko may dara sunu grand frère la moo ñëpp xam-xam moo njikk a bëri mais ñun ko may dara cent franc du ko may barke Seydina Muhammad war na yàlla ñaanu ko barki alxuraanu karim amul lu may ñaan si làmb ji lu may ñaan man ba ma demee ba ñaan ki si làmb ak li ma def si làmb ku def 21 combats 18 victoire ah. man ñan laa bëreel. bëri na ah man ay ndaanaan laa bëreel ay ndaanaan laa daan. waaw waaw. kon man du ma tiit aw ma lu may tiit aw ma lu may ragal su ma nee tiit ma tekki sama ngeen ba bàyyi bëri. te doo moytu ci ma lu may moytu ci moom man dama bëree kele. man maay borom kele yu bare yi boo bañee eh. kele bi la beneen kele si di daa mel ne la miin am na yor nay kele waaye ki muy bëre daa garaaw ma gis man dama dem équipe nationale ah, dem Niger dem Burkina toj ko équipe nationale laa dem maa ngi sama six médailles si lamba ba sa sàmm yow nangul nan la ka mais xale dafa màgg bi ngay ñëw yow sa man da nga soob rek Eh, laxaat li ci bëri amu fa foofu bëri amu fa bëri Sénégal la am bu dee Sénégal du jël dara bu dee Sénégal du jël dara billaay du jël dara bër billaay wala am nga combat ndaanaan nga ndaanaan bu mag nga mais man dama a bëre daxoo ma bëre de yaa ma gis làmb mais daxoo ma bëre bàyyi loolu xel bu baax nag te billaay a métti si yow trop yàlla xam na loolu a dina métti si moom tout le tout le plan kii lépp lu ñu def si kàttanu borom le 19 dama koy daan incha a a liggéey tamaa yàpp borom incha rabbi na woon na ma compté nañu ruus yi yëpp doo fa sa nit du fi ko de wax ko ko waaw mobilisation bi nga nar mobilisation damay feesal stade bu soobee yàlla stade moom dama koy feesal yoof dafa am ñuy seetaan man la ñuy seetaan se yoof laa wax am na ñuy ñuy seetaan se mais kii ni mu defee stade bi tamit sii bi passé non dóor mu daanu kay nee na dàq ko ci nee na dóor mu daanu mën na jàpp non ki daaxee moom bés ba la xam ki daaxee bés ba la ñu xam yow ñaata mbër nga dóor mu daanu non ma gën a xam Lamine ñaata mbër nga dóor ñu daanu yow non man dóoragu ma kenn mu daanu si kattan yàlla dix neuf bëgg naa naa daal mu daanu de wax wax ko wuyu ko man xool samay komba samay combat man daal ay pokaar laa daan andi wuyu yi laa daan andi dama ko bàyyi léegi mais pokaar dina ñëwaat si combat bi hmm. incha allah kon jeex na combat bi bu wax armée bi armée boo xalaat jërëjëf comme que damay nga sama avance dama koy ñaanal bu baax di sant yàlla bu baax a baax a baax non fi ma jëlee combat bi gars yi dañu ma bañ dañu bëre bëre man gars yi dañu bañ a bëre man quoi moo tax ma jël combat bi mais dama xam ne ndaanal la ma taanaka si ndaanal ma jël ko kon kañ day ne du am dara luy sedd bés si li jaxate bu soobee day ne du am dara luy sedd xam nga lu waral loolu xam nga maa delloo avance xam nga waral loolu seet ay mbokk seet ay mbokk moo waral lool mais mu seetu si loolu instant bañu tu si dara bañu ma si dara yow dafa ay mbokk nanguwul loolu mu ñëw fii neuf heures fi fekk bu jël si avance bi waaw mais sport la nag billaahi wallaahi du nga la sport la sport la ku bokkul nit écrit rek waaw war ngeen a mën a euh, loolu sport la man loolu waxuma si dara delloo avance am delloo moo fen dara man waxuma si dara déggoo li ma sa delloo avance bi say mbokk dan dan ma jege. jërëjëf di ay mbokk maa ngi leen teel a nelaw. waaw moo dama delloo avance bi. mais xoolu si loolu du ma la may dara. man ba léegi delloo avance bi waxuma si dara man du ma si wax dara. jërëjëf kontaan nañ ci yéen bu baax a baax ak lu mën a xew daal ba bu nar a metti la combat bu nar a tàng la waaw ñaari bërëkat la ñaari xeexkat la. mbër mbërgale yaay mbërgale yaay su guddee fanaan